ndax bu mu commencé noonu si noonu wàññi ñu bëri seen liggéey sama doom ci la bokk vingt sept ans la am boobu moo doon soutien famille bi moom daan dimbali moom daan dimbali wax dëgg yàlla ndax papaam dafa gaañu moom daan dimbali boobu ba léegi mi ngi toog liggéeyul defu dara. ah mag laa am na soixante huit ans kon nag il faut ma projet sama bopp feebar bi moo tax ba ma déggee vaccin yi ñëw na ci laa dem def sama première ci laa def sama première dose sama carte baa ngi nii. man demaat deux fois foofu ñu ne dose bi deuxième dose yi ñëwagul ma dem ma leen jox leen sama numéro téléphone jox ma numéro téléphone bu mu deuxième dose bu mu ñëwee su ma woo téléphone ma dem def sama deuxième dose sama carte ngi nii. man kay esprit tranquille laa ci am comme que vacciné wu naa aar naa sama bopp évité naa samay déplacement yu bëri dematuma fen fenn dematuma ko fa ku ma seet su de gisuma la dematuma fenn évité naa sama déplacement yu bëri dematuma fen kon aar naa sama bopp maa ngi aar samay njaboot conseil xale yeeg mag yeeg ndaw ñëpp ñu dem ñàkku ji respecter mesure barrière tey takk masque tey ñu daan dante tey bàyyi xew yi déplacement éviter déplacement yu bëri